libération xëy di ñu a naan ñu benn bokk yaakaar ma ngi si jamono joo xam ne lëndëm na lool guddi gu si dugg ci la benn bokk yaakaar daal di nekk yéen gi nee na askan wi département bu Tivaouane ñoo ko daal jël daal koy ngar daajoo bi ñëw na nag di indi ay leeral ci lan moo tax benn bokk yaakaar am defet bu rëy fi nga xam ne mooy ca diwaanu Rufisque yéen gi nee na Kër Massar juróom benn commune la waaye juróomi commune yëpp Benno Bokk Yaakaar dañu ko ñàkk yéen a kaay gii de la témoin nee na askan wi jamono ji ñoom ñoo ngi émerger bu baax baax bu dee nag ñi nga xam ne ñooy waa Bokk Yaakaar jamono ji ñoo ngi ci guddi gu vët sa dëggu la bu dee nag waa Wallu Sénégal ñoom kenn gisu leen fenn yéen a kaay ñu waa na nañ lu toll ci fanweer ak ñaar cay département yéen gi di Source A nee ba neexul waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dañuy déliré dañuy caaxaan ñi nag dafa mel ni maanaam dóor yi ñu leen dóor dafa séddul ba léegi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar dañu ko dóor ba mu dee waaye nag ñoom jamono ji ñoo ngi lànk kandaare bañ a dee yéen kaay gi di Walf xëy di ñu xibaar ak di ñu leeral lan moo tax maanaam benn bokk yaakaar daal di nërmeelu ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn yéen kaay gi di Les Échos nee na sa diwaanu Saint-Louis foofee nag Mansour Faye dafa rëcc yéen kaay gi nee na Idrissa Seck jamono si yoonu perte Thiès gépp ndax tendance yi li nga xam ne moom la wane Thiès Nord Yewwi Askan Wi ñoo ko gagné tendance bi li mu wane Thiès Est Yewwi Askan moo ko gagné tendance bi li mu wane Thiès Ouest Askan Wi ñoo ko gañe ba ci ville bi yéen a kaay gi ne ne bi nga xam ne moom la waa Thiès amoon ci Idrissa Seck confiance boobee moo dañ yéen a gi de xëy duñu xibaar nan Bamba Fall daal nay dóor Cheikh Ba ca diwaanu Médina rawee na ko fa lu toll ci 919 voix yéen a gi di mandat nee Askan Wi jamono ji neexul ba neexul waaye nag dañoo imposé Macky Sall rapport de boo xam ne bu saf nga xam ne jamono ji moo gagné mairie bu Yoff yéenekaay gi de La Tribune nee na mburu ak soowa jamono ji ma ngi ci coma ndax ñi nga xam ne ñooy wàccee sa gëmutuñu Idrissa Seck kon daal mburu ak soow mi ma yàqu yéenekaay gi xëy duñu xibaar naa ñu amudu ot ca diwaanu Yëmbal Sud daan nay félicité baaragay bu yeewu askan wi yéenekaay gi di enquête nee na nag yeewu askan wi ñoom nee nañu Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg amal li nga xam ne mooy ay fraude waaye nag loolee ak ca département bu Mbacké ak ba ci Thiès waaye na leen leer ne loolee munuñu ko nangu tey munuñu ko nangu ëllëg Mame Boye Diao daal nay indi ay leeral ci lan moo tax Benno Bokk Yaakaar daal di ñàkk élection yi nee na rivalité bi am ci biir Benno loolee moo ko waral maanaam diirante mbagg gi yéen a kaay gi di laas xëy ñu faram-fàccee la maanaam ministre ak directeur généraux yi nga xam ne ñoo ñàkk ci gox yi nga xam ne fa lañ leen tabboon yéen a kaay gi nee na Abdoulaye Diouf dafa ñàkk Amadou Hott ministre bi ñu dénk wàllum économie dafa ñàkk Zahra Iyane Thiam ministre dafa ñàkk candidat Omar Gueye ministre Sangalkam dafa ñàkk journal bi nee na directeur général Babacar Sadikh Beye bu port dafa ñàkk Moussa Sy PCA port dafa ñàkk Lat Diop directeur général LONASE dafa ñàkk Bibi Baldé poste dafa ñàkk yéen kaay gi de enquête xëy na yokk si nag Assome Diatta yéen kaay gi de l'info ñu xëy fekk fa Moussa Diaw daat nay wax nag andi ay leeral ci lan moo tax Benno Bokk Yaakaar ñu dóor leen ba ñuy bëgg dee journal bi nee na vote sanction la Moussa ki nga xam ne mooy Macky Sall wala mu yëkkatiku waat ci lu jëm ci wàllum politique journal bi nee na déggooma rapport de force bu saf sàpp la yeeyu askan wi tegal Macky Sall journal bi nee na maanaam wu bon wu yées wi nga xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndal loole moo leen jural li nga xam ne mooy defet bi journal bi di source a nee neexul ba neexul waaye nag waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji ñoo ngi déliré yéen a kaay gi di réew mi quotidien génn ñu réew yóbbu ñu ca réew Burkina nga xam ne ñoo